asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi yëpp waaw di jiital si nuyoo bi suñu président Lat Diop soo gisee suñu sortie tay bi lenn rek a ko waral pour leeral ak tontu ay ignorant yoo xam ne dañuy ñëw di yàq deru ki nga xam ne doomu géejawaay la lenn ñoru ko lu dul liggéeyal géejawaay ak ndamu géejawaay souvent dañuy dégg ñu naan Lat Diop ak Alioune Sall nan la ñuy bokkee APR bokk géejawaay ba pare doon benn te jàmm amu fa pour leeral gars yi ne leen ñun certes ñu ngi APR mais bokku ñu APR bi Alioune Sall nekk bokkuñu bennoo bokk yaakaar ak ñoom parce que nit ki su ngeen di ànd ngeen bokk dara li si gën a rafet pour ku nekk gis sa bopp mooy ngeen ànd àndu nawle surtout sooy ànd ak ñi nga xam ne gënoo leen si dara ëppoo leen dara ja gënoo leen jàng gënoo leen bëgg li ngay def danga leen war a respecté gis nañ ne nag Aliou Sall ni muy àndal àndu mbëtt lay ànd ak ñoom mooy ànd boo xam ne bëggoo ku la jiitu bëggoo ku nekk sa ginnaaw bëggoo ku nekk sa wet mooy soo yaa ngi yaakaar nit ki la jiitu lekk sa gunóor su nekkee sa ginnaaw nga yaakaar ni day màtt sa genn su taxawee sa wet nga yaakaar ni day ñëw di tëkk diiroonteeg yow mbagg pour leeralaat gars ne leen ñun APR bokkuñu si dañoo yor suñu APR bopp yor suñu bennoo bokk yaakaaru bopp ndax lépp luy dugg si fii géejawaay concerné APR bi yëpp ñun duñ si gis suñu bopp lépp lu fi am duñ si gis suñu bopp li ñuy campagner li ñuy doxal su mobilisation amee lépp si poosu Lat Diop lay génnee moo tax du ñu nangu nag kenn di ko laal baaraamu tuuma wala nga koy taqal loo xam ne doxewu ko maa ngi dégg ñu naan Touba Touba def na fa ñëw na fa mais teewul defet lañ fa am affaire bi du da ngay xool ni am na fa defet mais da ngay xool li nga xam ne moo yokk si affaire bi ndax législative yi soo xoolee li fa score bi fa nekkoon nga ñëwaat xool fii nii di nga gis ni affaire bi yokk na presque trente mille voix yokk na si affaire bi nga dem Diourbel gis ni changement am na fa nga dem pikin noor gis ni jara dañ ko fa gagné à plat kon am na loo xam ne nit ki loo soxor soxor soxor loo bañ lëg-lëg-lëg nangul ko ni nopp yi gudd na ak li mu liggéey yëpp si département Guédiawaay bii nii nga xam ne cinq communes yëpp muy Golf Sud di Wakhinane Nimzatt di Ndiarème Limamoulaye di Gounass fu nekk dañ ko diviser plus de vingt zones zone bu nekk ñu teg fa bureau boo xam ne am na responsable sages yi responsable jeunes yi responsable femmes yi gars yi di fa liggéey di proximité porte à porte di organiser ay tee débat di dem si marché yi di di recevoir délégué yi di waxtaan ak ñoom di teg ay projet di élargir di liggéey di leeral li nga xam ne mooy liggéeyu Macky Sall fii waaw boobu nag ñeneen yi kenn gisu leen wéetoon nañ ci terrain bi bu leen neexee mun ngeen dugg coin yeeg recoin yeeg yëpp muy marché yeeg yëpp liggéey bi fa am yëpp Lat Diop moo ko fa def fii su mobilisation jotee soo taxawee rek nga ak xel mu sell di nga xam ñi nga xam ne dañoo ñëw am seen propre engagement ak ñi nga xam ne dañoo ñëw parce que ay bétail politique lañ dañuy ñëw ne leen jug ñu dem wala kii parce que lépp danga koy gis ci gëm-gëm bi lépp da nga koy gis ci vision bi Lat Diop ñi muy àndal dañ ko fonk respecté ko soxlawul ay nervi soxlawul dara parce que ñun dinañ ko matee fépp ndax dañ daf ñu ko jaral ndax lim ñu wan la cër bi mu ñu jox la gëdd ak yéene bi mu am ci géejawaay bi moo tax du ñu nangu kii que ce di ko wax loo xam ne da demeewul noonu ñaari ignorant yi nga xam ne nag ñooy ñëw génn di wax ku ci nekk di utal boppam importance du ñu tardé ci ñoom di ci wax ndax ñoom ñaar su ci rek Macky Sall du am fii deux voix du ko fi am li ñu jëm décembre di élection locale yi demande sociale la du ñun mais waa géejawaay la doomu gox bi ñoo bëgg doomu gox bi jiite leen ki nga xam day ñëw pour defalal ñu géejawaay boole leen doon benn ñun fii ku fi ñëw tabaxal ñu satoo defalal ñu alal bu dul jeex te boole doomu de près ou de loin bonsoir euh, à nos amis, frères et sœurs, camarades de parti. Bonsoir à notre leader, le président, le lion, l'éminent, l'élégant, l'excellent président, la Si vous voyez aujourd'hui, on est là pour apporter des éclaircissements face à des dénigrements qui sont en train d'être faits au niveau du Guédiawaï à l'encontre de notre leader, le président Ladjoub, que je viens de nommer. Permettez-moi, avant de commencer, d'apporter des félicitations les plus chaleureuses à l'endroit de notre cher président de la République, le président Macky Sall. Un président qui nous avons remué ciel et terre pour sa réélection, notamment sous la direction de notre leader, le président Labdioub. Nous avons été sur le terrain qui était divisé en 20 zones au niveau du département de Guédiawaï, sous la houlette du président Labdioub et du grand coordonnateur Bakary Traoré. Nous avons fait les coins et recoins du département de Guédiawaye pour la réélection du président Macky Sall. Nous y reviendrons. Et dès lors, nous allons féliciter le président Macky Sall pour cette réélection. Maintenant, je m'en vais apporter des éclaircissements face à ces dénigrements faits par ces personnes, ces mines de rien, qui osent déclarer la guerre, non pas à notre leader, mais à ses généraux. Je veux nommer le premier, Ibrahim Traoré. Je ne vais pas m'en passer de dénoncer son nom. Lui qui était secrétaire général politique, je ne sais pas quoi, lui qui avait été limogé au niveau de la mairie de Guédiaï parce qu'il était trouvé dans la mairie avec sa copine, dans son bureau, Dès lors, il était limogé par M. le maire à l'une salle. Le second, quand je lui ai entendu parler, j'avais laissé le poule. Pourquoi Parce que lui-même était au, au, camp du président Ladjoub. Il était en train de travailler avec Ladjoub. Et c'est Ladjoub lui-même qui payait son loyer. C'est Ladjoub qui lui a donné, financé 3 millions de francs pour un projet. Dès lors, ce projet même et en euh, gestation, mais il a des problèmes sur ce projet avec sa propre copine. Donc cette même personne, s'il se permet, par manque d'éthique, d'attaquer le président, le, lion de Guédiouaï, donc il doit, il doit se revoir. Je pense lorsqu'il faisait ce discours, il n'a même pas honte, il n'avait même pas honte de, de dénigrer l'homme qui t'a fait, l'homme à qui, si tu reçois, si tu perçois un salaire, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, je ne pouvais pas m'en passer de parler de ces deux personnes et apporter des réponses par rapport à ces questions qu'ils ont posées par manque de principe et par manque d'éthique. Donc, je vous le nommer Papa Tafa, Tafa Boudjou. Donc, il a dit dans son discours que le président Le n'a rien fait à Guédiawaye. Vous allez me permettre avant de continuer de revenir sur l'ensemble des réalisations du président Le Diop. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas maire, il n'est pas élu, il n'est pas ministre, il est un simple directeur. Et je vais vous dire et je vais vous lire les réalisations de ce simple directeur-là dans le département de Guédiouaï, de Pékin et même à Mbake où il a milité pour notamment augmenter l'électorat du président de la République au niveau du Sénégal. Le président Ladjoub, le directeur de la coopération internationale et des financements extérieurs du Sénégal, il a offert deux ambulances, deux machines échographes. Il a aidé plus de 10 000 personnes à obtenir des lunettes, parmi eux, ou bien parmi elles, si vous me le permettez, nos propres mamans. Donc, des preuves à l'appui. Il a aidé des postes de santé pour avoir des fonds de roulement des euh, groupes électrogènes. la même personne, le président Le Diop, il a aidé plus de 4000 personnes à avoir la couverture euh, maladie universelle. Je ne vais pas m'arrêter là. Il a équipé la salle informatique du lycée Sidina Limamlaï. D'ailleurs, allez demander à ses élèves du lycée. Par Sidina Limamlaï, je vais m'en arrêter là. Parce qu'il y en a qui disent que le job, par manque d'éthique ou bien de principe, disent que le job n'est pas, pas de Guédiawaï, il habite à Maris ou quoi. Je vais vous dire, le job est né à Guédiawaï. Il a fait ses études à l'école BRAC, ses études primaires. Il a fait banque islamique et notamment le lycée Limamoulaye que je viens de noter, où j'y étais moi-même. Euh, j'ai fait 2014 à 2011 à 2014

dañuy wax pour wax rek bëgg a wax tax ñuy wax ñoom ñooñu di wax kenn ki ki ma dégg muy wax moom bu nee la jóob def fi dara moom fi mu dëkk lampadaire yi fa tàq la jóob moo fa def centre polyvalent de formation bi fa nekk la jóob moo fa def kon kooku jarul ñu koy tontu sax duñu wax ay waxam ndax du nit ku koo xam ne war nañu di xaar sax ci moom du loolu keneen ki muy Tafa Booju Tafa Booju moom géejawaay boo tourné nit ñi xam na nu muy dundee day toppee rek nit kuy toppe nag jarul ñuy yegg lenn ci moom ndax moom moo doon taxaw naa Lat Diop bu ma bàyyee ma dee tey bu tourné di wax lii kon ñun amuñu leneen luñ ci indi mais lenn laa bëgg leeral waa géejawaay ñu xam ko lu ñuy génn di wax kenn waxu leen ko du Aliou Sall génn leen attaqué Lat Diop Aliou sàll moo naan leen génn leen attaqué Lat Diop parce que waa Lat mu suñu dox ba dégg ni wala Diop jóg nañu attaqué kenn mais fu ñu attaqué nag ñu riposté fu ñu attaqué ku ñu tooñ suñu déggee rek day fekk ñu attaqué ñu wala ñu tooñ ñu xam nañ ñu ñun si suñu caractère boo ñu waxee loo xam ne defuñu ko wala doxewuñu ko dañuy riposte chaque jour nag gis na du mu demee nii tey jii géejawaay dañu waxante dëgg journaliste yi ñu ngi fii ñun dañuy ñaan léegi journalistes yi ñoom ñu jël def micro trottoir dem laaj askan bi ñoom ñu wax kan mooy kan. Lat Diop dafa ñëw fii di fay laq yi Aliou Sall ci 2014 man moom laa nekkaloon doon ànd ak moom fu mu dëgg tànkam dëgg naa ko sama tànk lu mu wax dégg naa ko lu mu jëflanteeg askan bi dégg naa ko man mii di wax ak yow Aliou Sall dafa gañe ba pare ma bàyyi ko.

Lat Diop moo nu ñor te Lat Diop lu mu ñoree mooy ni mu doxee la rek ñun kenn moomuñu loolu moom dafa leer naññ mais nu mu doxee nu mu téye waa géejawaay nu mu leen respecté moo tax ñu téye ko jàpp ko ànd ak moom ndax tamit tey jii bu ñu gisee yenn yi muy taxaw fii di am géejawaay ba nit ku nekk taxaw ñeme taxaw wax lu la neex mais ñooñ ñooñu di wax billaahi laa lay waatal ni duñ jàkkaarloog man di ko wax ndax dañoo nekkandoo woon toog te kooku noonu taxaw di wax di Ibou traa di Tafa Boudiou ku ko taxaw wax ko sama kanam doo ko waxaat il faut ñu taxaw teg affaire yi tamit ci lu leer wootewuñu wootewuñu xuloo wootewuñu xeex mais am nañ droit ne ñu ñuy def suñu population di warloo nit ñi di leen jàngal war di ger nit ñi yooyu noonu bu ñu neexee ñu ne ñun géejawaay bu ñu dëkk ñu war fi jur ay doom ñuy màgg war fi am ay rakk ñu màgg comportement yooyu bu neexee ñun doomu géejawaay ñun ñu taxaw ne dañ koy xeex ñu taxaw tamit ensuite naan ay kër Aliou Sall lii kër lii mais boo gisee kër gi nga xam ne kii du diñ fi su géejawaay ay kër yooyu def ay fil électrique mel na kuy tabax kaso yooyu man kooku man dama ko nawlawul ci ci ci dara daal man moom daal man man moom Aliou Sall doy na quoi loolu la ñu gis géejawaay nag am nañu suñu yoon am nañ ñu doxee géejawaay xemmem doxin bi doxinu Lat job waa géejawaay ñoo ko xemmem ñuy wax di wax ay ay dañuy corrompre Lat Diop mosul mobiliser ba jox kenn un franc lu dul transport te da ngay gaare ñu fay transport bu ñu taxawee nag di wax yenn wax yi mooy waxu yàq waxu tilimal waxu bañ gis la jóg vey vey vey vey bi fi président vey bi si di ñëw ñun ne leen toppoon kon président est-ce que dina fi est-ce que dina fi parce que xam nañ ni ñun bu ñu carrément ak mobilisation la ak géejaay nu ñu derrière la ak engagement bi ñu def ci la Je xam ni responsable nga fofu jeune yi doon wax fi yëpp Papa Ndiaga mo nek unité di dresser foule Modjoum moy responsable Las Palmas la nekk Khalilou Laye unité 6 kon ñun du dañu and ak Lat Diop nii rek pour and ak mom mais ñi and ak Lat djob c'est des responsables politiques ño xamanteni nii tey ku ci nek am nga base politique kon ñun buñu génné dañu wara génn buñu nexon kenn kese mëna tok kërëm wo journaliste yi ñu tok mu wax li mu wara wax mais si suñu humble ci ni ñuy dundee bañ si ko ba dañ naan ñun ñooy les généraux de Lat Diop ma wax ci Lat Diop la personne de Lat Diop man de damay sant yàlla man bi militant man à chaque fois sax dama naan ñun ay latiste lañ ñun duñu APR buñ koy wax du sànni xeer président Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais mooy profiter ci occasion bi di féliciter ci ndam lu rëy li mu am président Lat Diop a def ci contribution bu mat président Lat Diop président Macky Sall moo ko wax de bi mu ñëwee fii géejawaay ñëpp di ko dégg moo ne ko bi nga nekkee géejawaay la sama xel dal président Macky Sall moo ko wax samay wax waxu président Macky Sall président Macky Sall moo ne Lat Diop gis naa sa gars yi Touba du suñuy wax waxu président Macky Sall kon nag tey boo taxee naan Lat Diop deful dara géejawaay wala nga naan deful dara Touba kon président Macky Sall ngay weddi weddi woo ñu ñun xam nga te lu ne fang kenn du ko jeex qu'on se dise la vérité bu ñu naxante Lat Diop nitu valeur la nit ku baax la nit ku am personnalité la nit la koo xamante ni lu lu mu mën lay def lu mu mën lay wax ñun noonu la ñu àndeek moom ànd ñoo moom parce que dafa ñëw digg ay affaire ànd ñoo moom parce que lii wala laa ñun jii di wax rek boo ñu déggee ñuy wax nit buy wax dëgg boo ko déggee da xam ne kii li muy wax dëgg la ndax ci dënn lay dugg ak koo xam ne day créer di diaboliser di fen di wax yoo xamante ni day bëgg rek nit ñi dégg ko xam wax dafa am solo bul wax pour nit ñi déglu la mais waxal loo xamante ni ku ko dégg tey dina la naw dina la respecté dina xam ne ñii c'est responsable responsables dina xam ne ñii ay père de famille lañ dina xam ne ñii maanaam gox yi jar na bu amee ay jiixi jaaxa ñu ñëw woowi leen mais di wax di fen di wax di jaxase di wut loo am pour lan ñun suñu bopp lu ñu gëm barki Seydunaa Muhammad président Lat Diop dañoo ànd ak moom ànd bu sincère mu nekk nit ku dëggu nekk nit ku am personnalité nekk vitrine biir géejawaay ñun ñuy gis suñu bopp ci président Lat Diop kon ñun Lat Diop rek lañ mën a àndal Géejawaay loolu kese la mais Aliou Sall ñu ak moom jotewuñu dara très sincèrement mooy mairie ville bi amul problème na eggali mandat am ci jàmm mais bu décembre loolu du suñuy wax waa Géejawaay ñoo ko wax. la preuve en est gis nga ci euh, euh, ci moment wu présidentiel yi bi ñuy def parrainage yi ñun pour ñu ne normal faw ñu sol t-shirt Lat Diop sinon boo ñëwee dugg ci kër pour parrainer boo nee Macky Sall sa gars yi déclenché. parce que Aliou Sall image bi muy woné fi bir Guédiawaye li ñuy bind ci journée yi ci lu bax wala li muy wax président Macky Sall ak réalité yi nekk biir Guédiawaye c'est diamétralement opposé barki Seydina Mohamed la djom moy nit ko xamanteni ni avec ou sans les épreuves mi ngi ci terrain bi chaque jour que jëfé la djom mi ngi ci terrain bi la djom mi ngi wacc nit ñi la djom mi ngi xol soxla nit ñi la djom manam à chaque fois li nga xamanteni ni tey un vrai leader non la wara taxaw taxawoo goxam la djom non la taxawee biir Guédiawaye kon may lancer appel rek président Macky Sall lay waxal ak wa aduna ku ci président Macky Sall tay bu amone ñaari nit ñu melni ni Lat Diop billaahi jaroon muy ñëw di campagne ndax kérok bu mu fi ñew mais li fi am ku ne gis nako ko Lat Diop pour mu ñew rek duggu ci euh fi gaay nek rek c'est tout à fait un problème def na une heure de temps pour duggu ndax ni nit ñi mel ci mom kérok manam boko fekke sax yow sa yaram day daw loolu la yalla dogal ci jëmmam mu nakari len loolu la yalla dogal ci mu neex leen loolu yàlla dogal ci jëmmam kon nag nit maanaam da ngay nangu ndogal te gis nga ku dul nangu doo nit Aliou Sall pourtant dafa ànd dafa dem ak Lat Diop élection mairie boobu ñun xamuñu Lat Diop sama copain bi wax léegi mujum li mu wax dëgg la billahi bi ñuy ànd ak Aliou Sall ñun boobu boo yi bandi bandi lu yëpp ànduñu ak Aliou Sall te tey bu doon ay affaire intérêt wala ay bëgg mos wala dara duñ fa génn duñ fa jóge ñun gëmuñu loolu fii Nations Unies fi ma nekk nii depuis 2000 laa fi yor boutique teraanga bu ne am naa ko fii laa am jabar fii laa am lépp macha allah alhamdulilah rabbil alamin kon ñun maanaam du ay nit dañuy ànd ak moom parce dafa ñu war a defal lii wala laa non non dañuy ànd ak homme de valeur homme de principe nit ku dëggu nit koo xam ne du changé nit koo xamante nii boo ko ne jàkk du sëgg nit koo xam ne du la fen nit koo xam ne du la nax la Diop du politicien homme politique la ci noonu la ñu yaree man bi ma ñëwee këram gis ni muy dundee dama kontaan gëmeewu ma ko te pourtant copain mu naan ma booy yaa ngi nii toog gelé say activité yëngatootoo sa mouvement ngi nii di waaj a fay defoo dara tee ngaa ñëw ànd ak Lat Diop dama ne ko fan la nekk mu ne ma APR ma ne ko demuma ñoom ñëpp a yem boobu xaw ma Diop c'est normal xam nga par que Sall ñëw na fi nax ñu cité bi maire yeeg ma dajale leen def fi meeting boo xam ne foo sànni mbàtt mu toj Aliou Sall bi mu ñëwee ci meeting xam lu mu njëkk a wax li ma gis fii musuma koo gis waxu politicien ma ne ko yéen gaay yam de ay oto yu pan ngeen bu leen poussé ba tàkk après ngeen ne ciao ciao mujj ma ngi nii du mu fen barki sayyiduna muhammad alim Sall nga may deg mu ma yow gënoo ma deggu yow no tuddu manako sayyiduna Omar Muna ma moo nga mel ni nga mel mais gënoo ma deggu ne babakar Ba demal sama auto ngeen ni ma sama sama sama kamin lu graw la ni netali ha ah. xam nga ñu xawa jappal baye ci la jappé sax mom sama tur mom Aliou Sall su ma ko wooyee mu kar wala mu woma ma bobu soxla nañu comprendre ñu ci moma bobu non man mi wax ak yow dañ ma investirone

mu ne lundi le financement yi di génn buntu hôpital Dalal Jàmm loolu kenn fàttewu ko image yee ngi fii ci téléphone yi woo camion crédit mutuel bi mu ñëw maire yëpp toog mu leen bu lëndee ngeen dem jëli ci seen xaalis maire dem votel ko le demee ñu xëy lundi bi maire yi dem ndekete deful ci banque yi dara bàyyi fa benn xaalis mu nekk gàcce boo xam ne puroon ma ñëw ubbi sama place liggéey rek problème la affaire bi metti ma te fii ñëpp xam nañ ma ci chaque jour damay bëgg nit ñi ku ma xool rek ma xool mais moment boobu affaire yi metti na léegi ñu commencé ma dugal ci affaire fenn ma toog jëlee lépp bàyyi décourage sax ci politique. fa la ñuy xool loolu la ñuy dund ñun président Lat Diop lañ gëm parce tey bu ñëwoon tey tey tey tey tey du am ah, exemple rek laay joxe arrêté leen nañu arrêté tey suñu collaboration ak président Macky Sall tey tey tey tey ñu arrêté ko te duñ sax jéem a comprendre intéressé wuñu ndax ñun xam nañu waa ji mooy kan kon ñëw nit ku mel noonu da ngay sonal sa bopp boo fi nekkee di jéem a dugal ci bopp sénégalais yi lii wala laa Lat Diop waa géejawaay ñoo ko bëgg doomu géejawaay la parce que Lat Diop tuur non yaayam tuddul Kumba Timbo dañu waxante dëgg dañu bàyyi yooyu am loo xam ne rafetul sa waay xam nga maanaam maa ngi jégul bay wax quoi mais nag dama bëgg